Ah, c'est Madame Diawara. Je suis la vice-présidente de l'association des sages-femmes du district. Ah. c'est dans le cadre de nos activités Comme 2018, 2018, on a eu un programme chargé à, faire. On a fait presque tout le programme de dépistage et autres. Et aujourd'hui, on est venu pour clôture. On a fait un week-end d'activités. Aujourd'hui, on, a centré ça sur le poste de santé de Ersan pour des dépistages contre le cancer du col de l'utérus, cancer du sein, dépistage sida. au passage, nous remercions Safia Toutiam CNRS qui nous a accompagnés carrément. avec ses collègues qui sont venus nous accompagner et on la remercie fort heureusement. En plus, nous avons fait planification familiale avec Maristop aussi. La commune euh, parce qu'on a eu à parcourir les autres postes de santé durant l'année 2018. Et on a fait à Anen, à Noto, et on a clôturé par euh, parce qu'il y a un grand cible aussi, et la population en a besoin. Euh, Euh, euh, euh, actuellement, on est à plus de 100 parce qu'on a ouvert quatre bureaux de consultation et on, a, on est à plus de 100 à peu près. Hein. dépistage VIH. Il y a eu, en général, il y a eu des cas de DST, des infections sexuellement transmises. On en a décelé beaucoup. C'est pour cela qu'on organise ces séances de dépistage pour pouvoir les détecter, parce que c'est une maladie qui est, silencieuse les, manifestations, viennent en, phase finale. Et là, on est obligé d'organiser ces séances de dépistage pour que les gens viennent pour, pouvoir se faire dépister éventuellement voir la pathologie et prendre en charge rapidement. Alors, c'est important financièrement, on peut dire on en a, on n'en a pas. Mais quand même, on peut remercier ses partenaires. Euh, du, coup, on a organisé, il y en a qui sont venus. Il y, a, la mairie qui a appuyé, il y a les partenaires étatiques, euh, les partenaires euh, politiques qui sont venus aussi nous appuyer un peu. L'activité activité clôturée. parce que le poste de santé nous couvre le district sanitaire avons nañu secteur yu bëre moo ñu clôturer R100 parce que dafa am cible bu avons une gis nañu femmes am besoin bu ñu defee étude yi euh, un grand cible les femmes en ont besoin moo tax ñu clôturer ko fii def ko parce que. waaw euh, bin euh, femmes yu bëre lu ëpp si si téeméeri jigéen bénéficié nañu si si consultation dépistage bi te jeunes yi aussi ñëw nañu en masse def dépistage contre VIH sida bi waaw te dese nañ si ay pathologie infection bi bëri na infection bi ñu jigéen ñu xool sur juróom yi di nga gis ñeent yi dañu am infection loolu moo tax sax ñuy gën a am objectif di def dépistage yi di ko maye pour ñuy ñëw parce que day toog feebar bi day toog di nelaw doo ko xam stade final bi lay lay réagir alors la problème am na moo tax ñuy def dépistage pour détecter leen ñu mun leen faj si temps ñu mun si wér. alors kuréel bu mel nii waaw am na ñu ñuy jàppale parce que ñu jógee pour def dépistage si la ñuy daw si bureau yi pour ñu ñu def ay soutien ñu dimbale ñu mais fii amuñu carrément partenaire boo xam ne direct boo xam ne day ñëw dañuy def ay dolli ay fonds ak matériel pour ñuy mun di def activité yi carrément te loolu dañ siy woote daal si partenaires yi ñuy ñëw di ñu jàppale parce que ñun dañuy def social lu ñuy def ni si social suñu doole kese ñu ko moo ñu def association à partir maigre somme Nous def remercier aussi euh, laboratoire Pierre Fabre parce que matériel bu bu ñu am en moitié moom chaque fois nous def dépistage suñu ko déggee dañuy ñëw accompagner ñu dañuy jox euh, euh, tout ce qui englobe yoo dañu dépistage carrément vraiment ñu aussi de leen remercier di remercier aussi CNLS waaw buñ ko demee wax ko si biroom ba léegi boo bëgg ba léegi mu ngi ñëw t-shirt yi moo ñu ko jox matériel bi moo fi ñëw équipe bi yëpp ñëw nañu jàppale ñu vraiment ñu ngi leen di remercier di remercier aussi sañu médecin chef régional ak sañu médecin chef district ñu tam accompagné accompagné envoyé na fi délégation bu bëre laboratoire baa ngi fii ak euh, major labo mi ngi fii ak ak ñu gérer dépistage sida ñoom ñëpp envoyé nañ ñu jàppale ñu pour la réussite de cette journée assistants sociaux yi tamit ñu ngi fi parce que di nga di trouver ay cas yoo xam ne dañuy besoin de euh, assistance sociale bi dafa war a nekk si wetam pour mun leen déstabiliser accompagner leen waaw ah lu ñu leen di conseil hygiène si seen kër yi ba pare il faut ñu set jigéen dafa war a set hygiène yi et tout le temps tamit ngay dem di dem di poste de santé bi si sage femme bi di dem di di bul xaar ba feebar am ngay dem parce que feebar yu ñuy am yëpp day nelaw ci fin bi lay ñëw moo tax soo amee jot weer ñaari weer ñetti weer nga ne xaama daw sage-femme bi mu xoolal ma mu xoolal ma sama yaram ndax amul benn problème loolu laa leen di gën a faire appel jigéen ñi population bi ñuy ñëw di fekk si ñun sage yi ubbeeku nañ si ñoom pour seen wér gu yaram